ci biir commune Kayen bi nag euh, dañoo demoon ay jongante jongante yi ñu dem ñun dañoo gañe euh, yàgg nañ di gañe nag depuis 2012 ñu ngi gañee ba tey ñu ngi gañe bi yoon nag gañaay bu rafet lañ gañe parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xëccoo huit listes yi euh, suñu liste moo jël paie ndax li tax mooy biir ñi nga xam ne ñoom ñoo 2885 yi nga xam ne ñoo voté ci biir commune bi 1708 yëpp votel nañ président Macky Sall donc loolu mooy wane ne euh, dépassé nañ suñu euh, adversaire yeneen yi euh, ki topp ci ñun mooy waa wàllu Sénégal mu ngi am 536 voix ki ci topp yeewi kon donc ça veut dire que ñun gagné nañ gañaay bu rafet rafet te boo gañee nag dañ ne boo liggéey ba pare war nga am droit nga laaj loo xam ne aussi population ñu ngi ko doon jooytu ci biir département bi ak ci biir commune bi mooy lan chaque fois dañuy gagné waaye dañuy gis ne euh, suñuy en tout cas cadres yeeg suñu responsable pratiquement duñ leen di promouvoir maanaam il faut ñu jàppale ñi ñun tam ñuy bokk ci ñi nga xam ne ñooy diriger bokk ci aussi ci ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy yore li li yokk euh, doole président ci biir gox-goxaan yi mooy lan promotion des cadre promotion de la promotion politique loolu nekk na loo xam ne lu ñu bëgg la beneen mbir bi mooy am nañ jafe-jafe ci mbiru yoon am nañ jafe-jafe ci mbirum wér-gu-yaram gaa ñu ngi am lu ñuy féliciter président surtout ci euh, PUDC ak forage yi mu def foofu ak euh, li nga xam ne moom mooy Puma bi nga xam ne mu ngi fay construire benn poste de santé fi ñuy wax Kaanuma mais problème principal mooy problème des désenclavement maanaam yoon amut te dañoo jege Gàmbi ba nga xam ne xur yi dafay bëri bu ñu tawee dañ am jafe-jafe pour mën a ñëw ci centre de santé bi ci Koupentoum beneen mbir bi mooy soxla nañ aussi jeunes yi ñi gis seen bopp parce que xëyu ndaw yi gaa mu ngi ci waaye nag war na gën a développé wu ba nga xam ne nit ñi danañ gis seen bopp bu ko defee bu ëllëgee bu taxawee ci seen wet di leen wax ne jàppale leen nguur gi jàppale leen président Macky danañ ci am cawarte waaye bu fekkee safaan bi la day indiwaat jafe ci li nga xam ne mooy ñëw ci kanam ñaan en tout cas ci euh, li nga xam ne mooy euh, conseil bi nga xam ne mooy ñëw au conseil bi ñi jàppale ñi ci ñi am ci yaa ngi dégg parce que dañoo amoon conseil économie sociale yàlla def mu décédé mais ñi renouveler ko yóbbu ko feneen yaakaar naa population yi gis nañ ne loolu injustice la donc nañ ñu jàppale ci loolu. beneen mbir bi mooy ñu ngi félicité suñu tête de liste nationale bi nga xam ne mooy madame Aminata Touré ñëw na ba Koupentoum wax dëgg na yàlla. Euh, booster nañu gën nañu jox courage ba nga xam ne gagné nañ gagné élection yu rafet ñu ngi koy félicité ñu ngi ñaanal président Macky Sall ndam yi muy am ni yal na ko jik te gën a yokku te aussi ñu ngi ñaanal vraiment ñi nga xam ne ñoom ñoo muyee la mayo vraiment ñi bàyyi leen xel. Euh, surtout zone rurale bi euh, dëgg la ñëpp ñoo bokk Sénégal waaye zone rurale war nañ leen defal traitement particulier donc lii daal laa bëggoon a lancer di wax ne gagné nañ euh, ñu ngi xaar récompense boo xam ne ci kilifa gi lay jógee merci beaucoup.